que li la waroon wax sénégalais wala leneen la waroon wax sénégalais lan la jël ci place li mu waroon wax indi fa leneen nañu déglu ji bo Ndour dellu si waat Ndour def na ab jangat jëmale ci chiffre yi nguur gu bees gi joxe ci point de presse biñ doon amal ba dem sax bay accuser nguur gi fi nekkoon ñu tewlu ko nguur bu bees bi li mom ubbi nañu benn affaire bo xam sénégalais waru ñu nangu affaire bi mu démé non benen bi moy que dañ leen fal pour que rew mi dem on ne va pas payer les pots cassés ah vraiment sénégalais mënuñu fay les pots cassés. parce que li de part et d'autre c'est catastrophique. vraiment. li may dégg sànq ci suba maa ngi yeewu seetaan euh, ma koy nuyu au passage le ministre Abdourahmane Diouf il parlait de l'université mais si l'engagement de dama tiit parce que les gens parlent de problème de mobiliser sax un milliard wala ah voilà c'est un problème à que. voilà la chose bi nga xamee da ngeen ko am mooy nguur gu bees gi daf ko am ak ñun quand vous dites que da ngeen ñuy wax dëgg wax leen ñuy dëkk sur toute la ligne wax naa ko fii la la dernière fois. bés bu kañ bés bu institution yëpp daanoo rek. Casamance am indépendance. ba kañ na la coono gi. na leer saa dama dem di watu leen xel loolu. wax fa dëgg yàlla sama akulaay taala. billaay wallaay taalaay dama dem di watu foofu may watoo. saa mo fa rombee ajjuma damay damay parce que da ngay bëri liggéey su ma damay ñëw du mëna mën damay xaar ba son mu ñëw fekk watkat yëpp toog ñu may seetaan moo door sama coupe bu nice bi te yow dama bayyi tuuti karaw sax mu ñëw tuuti. Eh, eh, nice. maa la nice ba <laughs> ci ci ci ci bi fekk boy yi wat le vendredi pour un pour un noir ah pour quelqu'un qui prépare le week-end la première chose c'est d'aller chez le coiffeur je viens je les trouve ci biti ñu Il y' a personne. man ñu ne ma personne. signal d'alerte. alerte la. foo xam ne da nga daan xaar nit ñi ñëwatuñu watu. dans nos pays là xam nga la moo ma neex ci tubaab bi. quand y' a une crise dañu naan dafa am crise dañ koy teg ci kaw table bi. ñëpp xam ko. il faut pas nëbb essayer de am beneen posture ba nëbb dëgg bi nit ñi. billaahi. billaay foofu la am solo mooy xam nga tey ji ni di rëy rëy euh, ñuy wax affaire ay subvention yeeg affaire mënuloo recevoir boo nee subvention. wala di rëy lay soo jëlee dix sénégalais. nga leen subvention neuf yi xamuñu lan na xamuñu ko xamuñu ko wax leen nit ñi dëgg. billaay. dëgg boo xam ne yéen ñi nga xam ne yéen a am yéen ay technicité bi yéen ay technicien ngañ mais dañu nekk ci dëkk boo xam ne ñi si gën a bëri jànguñu. waaw waaw. seen xam-xam sorewul. te nit ñi dañ leen wax dëgg ndax ñu mën a fagaru li ma dégg mooy que. kon ñoo ko déggandoo muy analyse bi nga xamante ni Bouba Ndour indi na ko nee naa leen sénégalais bu nekk na nga utiliser sa xel ak sa xalaat ndaxte yàlla daf ñuy jox xel pour ñu koy xalaatee mën nañ la nammee nag premier ministre ça ne veut pas yaa ñu ëpp xam-xam ça ne veut pas yaa ñu gën a jàng ça ne veut pas que yaa ñu gën xam nu àdduna di doxee. parce que ñi jàng ba yee seen kayit xam àdduna lu muy doxee wër àdduna wërngal këpp fréquenté lépp loo xamante ni réew noonu lay doxee ñi ngi fii toog seen salon ne pat kon nag li ma koy waxaatee rek du ma ci tàyyi gis dafa war a leer la ñu gis le jeudi 26 chef du gouvernement teg ko amul dara lu ci leer dégg-dégg dafa war a xóot li mu ñu dégtal suñu nopp amul dara lu ci xóot jàngal la ca biir ba ñu jàngee la ci biir maanaam fooy mu ñu wax sénégalais yi dëgg. kan mooy wax sénégalais yi dëgg maanaam moom mi taxaw dagaan baatu askan bi wër Sénégal woo daw yi ñu gunge ko mu xeex wàcc ci tali bi tëj école yi tëj hôpitaux yi ndaw yi dee ci tali bi ñii ñàkk seen loxo ñii laago ñii ñàkk seen liggéey ñii ñàkk seen ay bien ba keroog ñu teg ko ci bopp réew mi donc lenn lañ koy demander mu ñëw jox sénégalais yi li ñu soxla ci moom. sénégalais yu soxlootuñu nga toog di inventé ay wax yoo xamante ni moo tax ñi jëlee fii ñi fi nekkoon ki xam lépp nag di gis lépp bi nga nekkee opposition wax dëgg yàlla bi nga nekkee ci biir yow yaa war a gën a xam ma sàmba wala ma demba tey ñi nekk ci biti sax dafa mel ni ñoom ñoo la gën a xam mi ngi woote crise crise soo koy wootee da ngay teg crise bi sur la table du sénégalais du journaliste du kenn koo xamante ni gis na crise bu mu leen tegal ci kaw table lu dul ay waxi kese wax nag yàgg nañ ko dégg ci moom ndaxte ki fi taxaw ne Macky Sall dafa indi ay tubaab ñu samp ay pipeline plan ci géej gi guddi bu jot ñu nangak suñu pétrole man xawma fu mu jëm moom xamul fu mu jëm yow sénégalais lambda bi xamoo fu mu jëm mu wax ko ci télévision ñëpp di ko dégg Ndeye Fatou Ndiaye moo ko invité woon jamono jooju mi ngi wal fajari ay nit yu taxaw ne Aliou Sall lekk na six mille milliards ci xaalisu pétrole bi ay nit yu taxaw ne sénégalais bu nekk Aliou Sall yoral na la quatre cent mille francs ci six mille milliards bi tey ñooñu ñoo ñëw yàlla weer leen diggu bëccëg ndar kàmm ne lii kii njëkk a présenté pétrole ci senegal yéen lay doon yéen lay doon te amu leen ci benn gàcce pour taxawaat ak askan bi ne li ñu waxoon ak nangam sàngam. kon donc il y a pas de crise li am solo moy préparer leen sénégalais yi fi Tay jëm li ñu bëgg payer lo la peau cassée des sénégalais manam moy ñu ñu la joon sen baat ñu jox leen ko Tay nenañu liñ leen digoon dañ leen ko defal mënuñu ko donc fokk ñu tibé tibbeewaat ko ci yeen pour defaat ko ci biir Sénégal fu mu toll dañoo doyal sëkk bu Ndour wax na leen ko salon de coiffure bi mu doon wato wat sa bopp 1000 francs 1500 da nga doon rang Légui da ngay dem salon ba fekk ñëpp tok. ñi ubbi seen boutique dañuy toog une semaine duñu gis ku leen ne salaamaaleykum tissu bii ñaata lay jar tailleur gisatul ku ko ne ñawal ma gisatuñu kenn koo xamante ni dem nga marché pour jaay muy jaay kotu ginaar bi di jaay kotu xar bi ñiy yor seen cag-cag tey xëyal ci rond point yi fa la taxaw huit heures du matin ba midi kenn su ci demee kenn mooy dem te su demee keneen du demaat ce qui veut dire que nit ñi amatuñu sax lu ñuy jënd bay livrer ñu doon def trois repas par jour benn repas la ñuy def léegi. treize heures la ñuy añ su guddi jotee ñu naan ndox ci ki ne woon day soppi xar kanamu Sénégal donc je crois que sénégalais yi ñoom ñoo war a jël seen matuwaay xam ne ni que waxi kese yorul réew nit nag soo waxee ba ñu fal la wax dëgg yàlla war nga am yeneen yoo teg sur la table fii la sénégalais yi doon xaar maanaam mooy lan nga njëkk a jaale ñii nga xamante ni tey yi ñoo faatu ci géej bi. 200 personnes du naufrage yu Mbour fi la don xaar tay nga wax ni tay 30 corps yi ñu repêché alors que diggéen ngoon leen espoir day dans di juddu Fuñ ñu leen doon xaar tay sénégalais bi nga xamante tay mi ngi don jënd kilo de ceeb moins de 700 francs tay mu koy jënd 700 kilo sucre tay mi ngi jar 700 francs suukar bu mokk laa la wax waxaguma nag ci paquet bi jar mille trois cent francs essence bi mi ngi yokku jëm nañu ci courant bi nga xamante ne mi ngi doon coupé xuy xuy xuy xamat alors que Macky Sall mi ndooloon Macky Sall bu cuune woon courant bi coupé wuloon ñu ngi ko doon utiliser normalement Jakartamaan bi mi ngi doon dem ay livraison normalement ki donc 3 ñi nga gens trois mois de la location ndaw yi amoon as tuuti benn xëy que ko ngi seen buntu sénégalais mais pas nous donner des chiffres erronés vous ngi wax subvention Nous la compté sénégalais neuf yi lan subvention donc il faut que ngeen les sénégalais langage bu comme nous avons ko à l'opposition di xam nga opposition dañu taxaw di wax te luñu suñu leen wax dara ba ñu leen firnde rupture ngeen gisuñu rupture su dee wax lu dul dëgg ñuy nit de fausse nouvelle moo tax ñu commissaire Keita division de fausse nouvelle lañ ko jàppee commissaire Keita mais ana ñu ñu appel à la candidature est-ce que tey gis nañu benn appel à candidature buñ def division de lan ana ñu ñu newoon bës bu ñu au pouvoir caisse noire dafa haram lu haram yalla boo ko dagadal dañ koy dal di supprimer war ko ci askan bi mais pourtant 11 milliards mi ngi présidence 9 milliards mi ngi fele nga xamantene moy primature mom fi mu ça fait 20 milliards est-ce que une division de bonnes nouvelles la wala division de mauvaises nouvelles je crois que sénégalais yi fi ñu leen di xaar dafa bëri bërki dembu dañu taxaw décembre 2022 élections municipales. élection municipale ñu ne ñoom bés bu ñuy au pouvoir loi bi ñuy njëkk voté assemblée nationale mooy loi buy criminaliser li jëm ci wàllu borom ñaari tur di góor jigéen ban loi la dugal assemblée nationale supprimer leen au conseil des collectivités territoriales ak CSE ban loi la assemblée nationale droit de l'homme maanaam respecté loo nit ñi seen droit loolu diffusion de bonne nouvelle la wala fausse nouvelle après loolu lan lañ fi gis un représentant des góor jigéen ci biir palais Jean Charles Michel ba ñu jógee foofu lan la ñu gis Mélenchon ki njëkk voté loi. pour daganal mariage yu góor jigéen France moom la ñu gis université Cheikh Anta Diop temple du savoir te nee nañu parti chef de parti moo ko invité chef de parti am maison du parti war ko dalal ci maison du parti am fan la jël édifice national boo xamante ni ñëpp a ko bokk muy temple du savoir fu ñuy wutee xam-xam ñu am suñuy culture am suñuy ay valeurs barki démb kan moo fi ñëw Collins of Highbury góor bu am jëkkër kan moo ko recevoir jiitu gouvernement bi. kan moo ko recevoir ministre du transport kan moo ko recevoir ministre du commerce et de l'Industrie industrie kookoo ko recevoir la division de nouvelles nouvelle la wala de de nouvelles nouvelle ki jël loi pour criminaliser homosexuel est ce que di nga accorder l'audience ki nga xamante vrai homosexuel wax day yanu maanaa et les sénégalais vous êtes là en face de la situation et en face de la réalité li ñuy wax rek maanaam mooy lenn gis nga nit soo mënut da ngay taxawaat ak sa askan ce ne man kat li ma que ak li am du benn.

ñenn ci ay mercenaires du ñu mën ay journalistes di élever si chiffre de 650 millions alors que c'est 605 milliards de moins Moustapha Diop léegi répété na ko répété waat ko en tant que directeur Walfadjri un grand journaliste de renommée jamono ji tous les grands journalistes sont devenus des mercenaires foog nañu que nag am tour nekk Walfadjri wala TFM wala 2S moo lay def grand journaliste que démb gis ngeen poser question nit muy tontu li muy tontu nga ne ko du ma la permettre nga yëkkati ay accusation fii la porte est grandement ouverte ce qui montre arrogance bi insolence bi ignorance bi dafa dem ba journalistes ci ay plateau ana éthique ana déontologie donc je crois que les sénégalais doivent se réveiller et que ce gouvernement doit dire la vérité aux sénégalais L'Union prépare préparé wu maanaam subvention sénégalais yi xamuñu ko nee inflation dafa am Tej nañu buntu yi tëj de euh, yi wacce rideau yi li waron dugg dugguwul li ko waral manam moy suñu xam li nga état Lol nak dina jur njàqare njàqare bobu nak lépp lu ñu doon yokk jëmale ko ci wàllu courant bi dañ koy teggi kon sa facture courant day gën a cher 5000 bi nga doon jënd oyofal ngeen di jooy jàppal 5000 bi soo sàgganee 17 kilowatt nga ci am te courant boobu su chéré boulangerie bi day yokkaat mburu bi ndaxte mburu bi boulangerie courant moo koy yokk donc courant bobu su yokkee jàppal carburant bi muy essence bi dañ koy yokkaat su ñu yokkee essence bi tata bi dafay yokk transport am su yokkee transport am fan la jëm. kii jaay ceeb day yokk ceebam kii jaay jën day yokk jënam kii jaay carotte day yokk carotam kii jaay pombiteer day yokk pombiteeram kiy jaay suukar day yokk suukaram ndagam ceeba yokk ak suukar ndax lekk som bi sax dina yombati ci senegal ndax lekk som bi dina yomb ci Sénégal ki taxaw bër ki démb ne suñu leen joxee ba pour réew mi nappkat yi danañu napp ba nga xamante ne dootuñu gis kuñ jaay seen jën borom gaal yi tey lañu gën a ñàkk gis jën ana accord de pêche yu ñu waxoon nañu bàyyi ay discours yoo xamante ni dañ koy yëkkati ci kaw alors que la nekk ci suuf waxuñu ko askan bi soo bëggee jiite sa réew nag da ngay jël dëgg daal di koy teg te dëgg gisooguñu ko fi amul kenn ku fi mën a taxaw ne gis naa dëgg képp ku ne gis naa dëgg na wax intérêt personnel am ak bëgg a poosam ak bëgg koppar bu mu dugal ci biir poosam am na ci droit mais bu mu nee réew mi laay xeexal bu mu nee intérêt national laay xeexal intérêt personnel laay xeexal Sarr wax na ko léegi-léegi tay ñi mu toogaloon ci table bi yépp gëm naa ni ñoo ko xam-xam ñoo ko gën a jàng gën ko occupé ay postes yoo xamante ne mosu ko occupé à part inspecteur des impôts à part inspecteur des impôts na ma benn sénégalais wax poste bi le actuel chef du gouvernement daal di occupé sa Cheikh Diba a été directeur de la programmation budgétaire am expertise Ousmane Diagne li mu jàng ak li mu xam ak li mu occupé ci poste jàng ko keneen ak keneen keneen ak keneen keneen ak keneen ñu jógee Pastef kese ñoo amul cursus boo xamante ni am na benn niveau mais ñeneen ñëpp dañu am cadre tey directeur douane fa lañ ko bàyyi et pourtant recette fa lay jógee Cheikh Diba dafa jógee directeur programmation budgétaire ñu defal ko promotion indi ko ministère des finances parce que dañu yaakaar ci moom xam-xam ak xarañteem bi mu cultivé ci gannaaw kii nga xamante ne mooy Amadou Moustapha Ba bi mu nekkee ministre de l' économie du budget et des finances moo tax ñu promouvoir ko Abdourahmane Sarr dañ ko promouvoir. Omar Sambaba présente président le mouvoir. promouvoir pour lan parce que dañu une expertise une compétence et ils ont besoin de cette compétence au lieu que ñuy le coco mais dañu une compétence qui teg ko fële di indi affabulation ak manipulation ak allégation je crois que nous avons jot sénégalais yi jël une responsabilité hormis tout cela dama bëgg ñu déglu ñu vidéo c'est un expert financier expert financier alors. alors waxuma un expert en impôts.